ku jëfe xam-xam la ku bëri jàmm la ku ñeme dëgg la ñu yëpp mën na jëfandiku ñëpp yi dañuy am ci moom cofeel ak kers buy laa li ma dund amuñu benn problème ndax ñëpp ko nawloo ñëpp ko rus ñëpp xam ndax dafa dafa dafa sell dafa ñoo problème seen wax kenn kenn am ci moom tuuma ñàkk nañ ko xam ci te it saa yu joxe ay ñaan ci jàkka ak ci ak ci ajuma yi te bëri yàlla dana ko ku jege woon borom ku téye laa ñëpp taxe kon nag màkk ñàkk waaye lislaam ñàkk waaye umma bi ñàkk yàlla mi boole jéggal yaakaar ñàkk kenn koo xam ne kenn la ci lislaam maanaam mba am mbaar bu benn jën wadde mbaar ma de daal di kenn ku nekk ci ñun xam na lim présenté woon ci lislaam fii ci Mbàkke boobu muy jënd jëmm joo xam ne ñun ñépp ñoo ko ñàkkandoo muy Ceerno Abdoulaye Bousso kaana suufiyan kaana suufiyan wa wa musaqaf wa diiniya maanaam nitu yàlla la woon suufi la woon ab musaqaf la woon borom culture woon borom diine la woon yarkat la woon boo xam ne demi boppam da daan yar doomu aadama idil murabbi man yurabbi bi xaalihi laa bi maqaalihi nga xam ne ci demi boppam moom Baay Ablaay ci la daan yare yar googu mu doon yar ci demi boppam nag moo tax ñu koo xam ne yàlla képp moo ñu fa woon a wut ci moom jooju moo moo bi ginnaaw bi ñu lillahi ma ata wa jëmmi suñu borom ji doon moo ñu mën a wuute ci dimbali am lay ndax fii mu dëkk tey jii ñu dëkk fii ñun waa Ndiobène yëpp sëñ Assane wuute woo mu dëkkan moom fii ba teenu sëñ Assane bee bënn nga xam ne ci la ñëpp daan roote ba jëma sa tey ji dara mu sa ñaaw lépp dafa root lépp loo xam ne daana ca dugg di ko wax ak lu mën a doon sëñ bi ci cër waa Ndiobène nga xam ne alaaka waqida la am diggante ak ñun loolu ak tëskiri ak fàttali ma waral ba adduna tukki suuf li borom xam-xam ba wax ne al ardu tahya ida ma aza aalimuha mata yamut aalimun yamut min ataraf maanaam suuf bu fekkee nit yàlla day def ci kaw suuf ak borom xam-xam yi nee na suuf day dund waaye bu fi bu bu nitu yàlla kooku faatoo rek fenn ci suuf day dee kal ard ida malqaytu halla biha wa in aba aada fi akna fi ataraf kon ñun jooy nan ko jooy nan ko waaye nag dooyu xol lan koy lan koy jooy albukaau ala saadaati al amwaat tabki al araadi alayhim ka samawaat abki alayhim wa arju fi lbukaayi gadan ridwaanu man raabu bil halawaat baay Ablaay ñi ngi koy jooy dooyu yoo xam ne noppeegu di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu atte ko ci yërmandeem fee mu tëddee tamit suñu borom dafa indi ko ci ay anwaar xam ne ñàkk nañ koo xam ne umma islam yëpp moo ko ñàkk waaye rawatina doomi Mbàkke doomi ñëpp ñoo ko mag ñoo ñoo ko ñàkk waaye nag dana xam ne tey ji liggéey l'islam rek mu solo fee mu dana xam ne liggéeyal lislaam rek mu am solo bu dul liggéeyal lislaam solo waaye nag lii daana ko bàyyi xel bàyyi xel gi mu daan bàyyi xel ñun xam nañ ci dara ndax dañ daan waxandoog moom di toogandoog moom mu ñuy soññ ci liggéey bi nekk ci imaama bi ñu moo tax daana daana daanaan fàttaliku ci moom lu benn shaari waxoon ne euh, fa law kaanat dunya taduumu li rahu li waaxidin la kaana rasulullahi fii muqtada bu fekkoon adduna kenn ci def rasulullah sallallahu alayhi fi def te la rasulullah jëlee fi asxaab yi jëlee fi ñëpp faqat googu am ci nag ñun jooy xol lees koy jooy waaye ñi ngi ñaan suñu borom teg loxoom ci ak njabootam lim fi bàyyi tamit suñu borom teg ci loxo ba ñun ñëpp ñu mën cee barkeelu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw kaddu yu yi daal doy na ci képp koo xam ne mos ngaa gis kenn xam nga ndax di am yëg-yëg te diggante sa borom loolu Thierno melokaanam daan na wane loolu sama rakk bi moo moo ko jàngal alxuraan ba am ba am maîtrise jàng tajwid ak yooyu yëpp Thierno Ablaye fu fu fu ay xarit la bëri am ñu jokkalool ab Ablaye yàlla da ko wërsëgal waa Mbàkke waaye waa Fuuta ñoo ko gën a bëgg ndax namm nañu ku mel ni moom doone la ci rek koo xam ne yaa ngi ci marché marché di jaay ay mbimu te wasal gox bi jigéen am na lu ma yéem ci moom itam bi ñuy tabax jumaa ji a mu ngi marché xaalis moom lañ koy versé mu denc masta wecceew masta wecceew bu ñu ñëwee wàññi ba pare dafa ne tàkkal tàkk leen bu ñu ko fekkee bu ñu ñëwee soxlawaat dafay génne teg seen karam ne leen wàññi leen ak ni marché soxlaa wecceet mës a wecc bay noonu Ceerno daal moom boo buggee xam kan mooy Ceerno laaj ko waa Mbàkke waaye laaj ko waa Fuuta waaye laaj ko waa Njóobeen Ceerno boo ko gisee rek doo natam am na loo xam ne li fi mujj tey ku seet nit ñi ak ñuy mel ñii di jooy ñii di wax da nga xam ne kan mooy Ceerno Ceerno de nit ci jafe la yàlla xam na lii ma wax ñeme naa ko wax ndax kenn du ci dindi benn benn mbir bu baax la. ak yaa yaa imaam wax rek loolu rek doy na sëkk Thierno daal booba ngay xam comme doon Thierno nit ku fegu la nit ku ragal yàlla la Thierno nitu yàlla la Thierno yarkat la dem damay wax la yar ci xaal waaye Thierno euh, li imaam wax léegi ci ne boo koy laaj laaj ko néegu yàlla yi laaj ko itam ndaje cérémonie diine yi. waaye teer na laaj ko yar képp koo xam ne takkoo nga moom rek dana la yar man de néegu yàlla bii ko yàlla joxe dëxal ko ko man lay wax ne naa jiite julli juróom yi waaye man de heure bu ma taxawee ci kanamam rek damay dalaat baa damay nekkaat koo xam ne rek donga laa boy jàngaat saar yu gën gàtt ci alquran mooy suratul asr ñetti yoon wala maam ñaar yoon ba ñetti yoon gàggante na ma su ma ne watawaasoo bil nu wat tawaaso bi sabre suñu sëlmalee mu ne ma ne ko la bay mu ne ma bi taxfiif laa bi tashdid mu ne ma wat tawaaso doo ko sadda doo ko diisal dafa daan wata waaye doo wat nga xam ne kon saa yu gën a gàtt boo ko jullee ci gannaaw wala nga jàng ko rek daal jàngaat euh, am yar waaye da dalaat baax ci terme kon daal terme dimension la bu mag carte la bu rëy ci dëkk bi waaye ci réew mi nag yal ñu ko yàlla yërëmal yal nañu ko yàlla jéggalal yal nañu yàlla tas barkeem Thierno daal moom kenn mënu koo jeexal la. Paa Abdoulaye Bousso mii ñu ne moom yàgg nañ torop mais liñ seede si moom fii rek moo si nekk nit ku baax la yiw la borom euh, ma xaama la nit la koo xam ne daal nit lislaam nit ku lewet boole man li ma gën a yéem ci moom 1927 la judd jusqu'à présent ba ni ñuy génne àdduna duñ suul naaxul benn yoon donc loolu mandarga la ci nit ñi baax ni comme quatre-vingt-quinze ans wala plus ba pare euh, conserver sa mémoire te noonu la amee expérience nit la koo xam ne fii sur le plan euh, boo ko jëloon tey am na mag yoo bu ñu demoon ni moom ñu bëri duñ ko xam te moom noonu la xamee àdduna également boo doy toog di waxtaan ak moom da ngay yéemu bi Bousso li ñu ci wax rek mooy yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko yàlla yërëm yal na ko yal nañu yàlla barket li ñu dëkk ak moom mooy jumaa ji du tàqoog jumaa ji bis bu ne mi ngi ci jumaa ji waxtu bu ne day woor nit ñi sax ci xadara ji jumaa bi nga xam ne dañ ko def régulièrement day ci am da ci am xippi ak xool du xool ndax réellement ndax mi ngi dox mi war a dox moo wax la beneen mbir jumaa ji daf ñoo wax ne nañ créer benn caisse koo xam ne caisse de solidarité képp fi ñëw moom yàlla dafa def néegam bii du néegu boppam mais néegu doomu sërif yi la sërif bu ñëw fii ci dëkk bi boo ñëwee nekk ganam néeg boobu ngay utiliser kees boobu nag ci la alimentaire lépp loo xam ne lii mooy euh, action sociale boo xam ne am na ci koñ dañuy waxee jëlee ci kees bi moom moo ko initié fii donc mu nekk loo xam ne lii lu am solo la fi mu nekk nii kees bi am na ay fonds te teewul chaque fois lépp loo xam ne xew na rek ci kees gi lañ koy jëlee rek ko te loolu yëpp initiative am te mag la bu ko neexoon loolu du ko xew ba ensuite nit ku démocrate la lépp lu muy def day wax ne man lii mooy sama xalaat lan ngeen ci xam ñun ñëpp toog ñu euh, partagé mu idéem xalaat te li ñuy xalaat yëpp a fin de compte xalaatam lay doon mais teewul da koy bokkaat ak ñi ba pare pour mën a wax li ñi wax leen exactement li nga xam ne mooy li nga xam ne moom ngeen ci xalaat loolu donc wane na ne encore nit ku démocrate nit koo xam ne kii ku mën a nekk ku nekk si jamono ku ànd ak jamono bi amul lenn loo xam bala nga ko doon xam expérience am nga toog ak moom di discuter ak moom ci politique wala loo mën a di discuter ak moo am na ci am xam-xam boo xam ne bi te ku màndu la nit koo xam ne du dépassé jamais jamais noonu la oyofee également xale bu ndaw mun na toog ak yow di waxtaan ak yow mag mun na waxtaan ak yow mun na waxtaan ak yow en tout cas ñun am ñàkk nañ kilifa goo xam ne bii nañu ñaan rek yàlla tax ñu ci barke loolu la ñuy def ñu sant bu baax